di jël seen koy yi di ko dugal ci gémmiñi xale yi mu ngi am man mu wax naa ko lu ngeen mën ci man loolu am na Maxtaar Sarr wax naa ko ko nee naa ko sa wax ci bëri jéeg li nga yëkkatil kaamil nga waat ne fen mosoo jëw mosoo kattante koo takku ba léegi dafa ko mu ngi wax rek ba léegi defu ko kon Jamra da ngeen essuyer ci Cheikh Ahmed Nabou kayitu Suisse la am passeport Suisse la la yor ni ngeen koy traité nii du noonu la traité jigéenu jullit gis ngeen lislaam bu bon bi ngeen am Sénégal l'islam bu ñak yermande bi ngeen am Sénégal l'islam bu ñak mandu bi ngeen am Sénégal bu bokalé bi ngeen am Sénégal motax tay ku yaroo Sénégal bu ñëwé Amérique am dom du mëna yor domam ci l'islam parce que li du l'islam liberté du l'islam démocratie te yonentu dafa démocratie yalla ko ñëk démocratie la ikra fi din diine ji duñ ci forcer kenn dara lén lu la neex defal lu la neex bul def lo defit am naa tëddee ku def lu baax sa bop ku def lu bon sa bop ñii l'islam di fonctionner mais l'islam bo xamne den ko organiser tek ko place mam Makhtar ge suwa da ngay deg mu nan serigne Muntaxa ayadallahu amarahu wa umara wa khafara wa saba man ko yow yow imbécile ko ko day lal passion ak pas passu nit ak sen emotion bu tuddu serigne ci no da ngay fa ne lay wax wa amrukum wa amwala man oh, arabu copier collé yi ma Makhtar ge am naka jek bi mu gisee Makhtar sar ne ci rek la ko ñee ci bës bi ñew bokku ci ba pare ma ngi leen wax benen point gis ngeen murit yi dafa am force bu ngeen amoon te ñu ngi koy yi a koy waaj a ñàkk force bi mooy am benn kilifa te bootu ci ginnaawam lu leen naqari ngeen tëju wax ko ci biir kulal murid lal na murid yep li mo len may dole ba ngeen yegg ci ku bëgg rew mi sax danaan taalibeeb sëñ Bamba la yaakaar wat usman Sonko wahabis la mais daf ne murid la mais murid ci xar kanam lay feñ ndax murid ci xol la usman Sonko julit bu sel la ku bax la mais du murid man nga don julit bu sel ta do don murid don murid nak yeneen dimension la yeneen affaire la Sonko ku bax la julit la jang na alquran mu koy jëfé mu ngi jéem lu mën ci mbaax mu ngi rëccale comme nit ñëpp na ko yàlla jéggal te sàmm ko waaye du murit de mhm. murit ci xol la feeñ ci xarkanam te murit dañoo exceptionnel ci nit ñi gis ngeen li ngeen amoon yéen a ngi ñàkk te Serigne tuuba bi xëyee la Maodo xëy ñoom ñaar xawma ku ci gën waxuma ku ci gën du suma affaire li ma leer te ma gëm ko suma biir xool mooy ñu yàlla gërëm leen loolu moom leer na ma waaye kër sëñ Touba mu gën a neex kër Maodo milliards yi am ci murit bi amul ci kër Maodo milliardaires yi am ci murit bi amul ci Maodo déglu leen bu baax li ma war a wax sama fu ci kii daan day jaxase day su may nekku ci benn point laa bëgg a yegg te ku ma déglu xam li may wax milliards yi nekk ci murit gi nekkul tiwaawan milliardaires yi nekk ci murit gi nekkul tiwaawan tey bu mu tuubaa xewle woon tiwaawan xewle président bi day romb tiwaawan dem tuubaa loolu nag du ma ne liggéeyu sëñ Bàmba de pas-pasu ñi fi seen Bamba ba seeni orientation la seeni politique moo dox politique boobu nag bu ko murit yi nangoo ñàkk ngir politique yi àdduna bi ci Pastef ak APR nga xam ne Macky Sall jeexal na ma Sonko ci kaso bi te yooni murit di éternel di lu yonantu garanti mu jugee ko ci yàlla ay naxaate te loolu murit gi amoon moom la jeunes yi nekk Tiwaawoon commencé di def oustaz Makhtar Sarr waa Tiwaawoon la ut na organisation tuddewut ko Tiwaawoon de déglu leen bu baax daf ne aar daara ci biir aar daara moom daaraam ji da baax la ko tuddee di laaj xaalis léegi suy porte plainte def ko ci turi daara mais bu paree moom Tiwaawoon la jëm Mame Makhtar Gueye bi Maodo mu baax mi bëggee Zawiya Dakar mu teg ko bi ko maamam déggee daf ko jox zawiya ñoom sàggan neen ba zawiya bi boo fay julli tey yàmbaa moo lay xeeñ seen kër gi genn wàll gi képp kuy wut kola saar ak jaaykatu yàmbaa cagatukat ak ñuy def lu bon demal ci kër googu noonu ñu xaajoon jox Maodo xam ngeen ne seen maam baax na waaye yéen ñu fi ba gàcce ngeen moo tax it léegi ñoom ñu ne dañuy jaay kër gi ngir yàmbaa tuxkati yàmbaay fiñ ne ak bandi bu mu fa nekk looloo naqari woon Latif Gueye moo tax mu jugoon doon xeex yàmbaa bu nekk seen kër di tëj doomi jàmbur yi jeunesse si ci benn zone yàmbaa te yamba di faj yamba ñi koy jaay légalement jamono bi ñuy xeex yamba latif dafa fenoon mu ne ci turu lislaam la koy xeex bàyyi jigéen yi cagatu cagatoo gën a bon yamba bàyyi sàngara umul xabaayis dem ci yamba parce que seen kër jaaykati yamba ñoo fa nekkoon ñu daan tux boo jullee yamba bi di la fekk mu leen au lieu que ñu xeex ko xeex seen kër ñu ndax nit ñi ne jamra la organisation l'islam la ne yamba den koy criminaliser te bàyyi sax xam ngeen